kon moyen de communication yi dafa war a doon ay programme yu wér war a doon ay programme yoo xam ne du fowe xel day def lu ñuy tuddee day xool état psychologique gu doomu aadama di ko bàyyi xel di xool ndaw ñi di xool ban génération la bëgg ëllëg noonu la ñuy tegee programme wala bokk na ci ni ñuy tegee programme bu ko defee li nga xam ne mooy jaar ci moyen de communication nit ki di ko déglu wala mu koy seetaan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 loolu moo tax ndaw ñi ak xale yi nga xam ne seen xel matagul su ñuy teg ay programme war nañ leen a sóoraale di leen bàyyi xel ndax bu ëllëgee ñoom ñooy yor mbir yi ñoo koy doxal te bu fekkee ne formé wuñ leen ci lu baax bu ëllëgee buñ ko yoree duñ mën a jëm duñ mën a jëm fu baax loolu moo tax nañuy bàyyi xel valeur wax naa léegi ma ne al adab xawlan wa fi'lan nit ki bu amee teggin ci wax ak ci jëf loolu teggin la waaye bu yàggee valeur lay doon ci moom loolu nag foofu lañu bëgg communication yegg fa ci réew mi yegg fa ci àdduna ndax àdduna bi dafa tuuti lool ba fu mbir nekk rek e, e, kenn ku ci nekk foo mën a nekk lu mu sori sori mën nga koo jëfandikoo moo tax bëgg nañ ñu tabaxaat sunu modelu communication ñun bañ ko copier modèle boo xam ne day tabax day yéwénal day liggéey ci bañ a màbbu li nga xam ne moom lañ donnoon ci wàllu diine wala ñu donnoon ko ci wàllu société saxal jikko yooyu ci nit ñi boo xoolee ci média yi ñi ngi koy jaare léeg-léeg ci ay lu ñu tuddee ay loisir maanaam loo xam ne nit ki bu liggéeyee ba sonn day toog di ko seetaan ngir mu féexal xolom am na ci yoo xam ne ci film lay jaar am na ci yoo xam ne ci lu ñuy tuddee violence lay jaar am yoo xam ne ci criminalité criminalité lay jaar lenn lu ci nekk nag xëy na am na ñu ko yor di ko saytu ci fa gën a kawe ci àdduna bi waaye dëkk bu ci nekk war ngaa xam sa mode de société nu mel yan façon nit nga am booy jëli mbir nga segg ko xam lan nga ciy jël ak lan nga ciy bàyyi lislaam bañul ku jëli lu baax indi waaye nanguwul ku jël lu bon indi alxikmatu dallatu lmumin yaaxuduha aynama yajidha aw kama xaal xereñ jullit bi moo ko moom daf koo réer rek mi ngi koy wër fu mu ko gis rek da koy jël moo ko moom waaye nag waxuñu nga mel ni ka xaatibil layl xaatibil layl mooy koo xam ne bu guddee lay lay taxan matt bu ko defee mën naa laal matt sax matt mi am e, dara lu ko jam walla mu matt ko loolu lañu ñu bëggoon a wax ndax boo xoolee si médias yi dina def promotion de médiocrité li ñuy wax promotion de médiocrité médiocrité médiocre koo xam ne du xëy du def dara du def benn effort bu subaa mu tekki boo xoolee film yi ak yenn programme yi daw si tele yi loolu lay gën a wane mooy nit ki bu la neexee nga yaafuus mais tëddal rek di nelaw am na foo xam ne boo ko ragalul boo fa demee bu subaa li ñëpp di am di nga ko am promotion boobu boo si yaree xale bi mu màgg si te xam nga xale yi ni leen di yaree seen at yi fu ci nekk dafa am lu ñu fay tabax programme mu xale bu juddoo ba ba muy am juróom-ñaari at dafa am lu ñu koy tabaxee juróom at ba fukki at ak ñaar dafa am nu koy tabaxee fukki at ak ñaar jëm fukk ak juróom-ñaar juróom-ñett dafa am tabaxin ba ñaar fukki at ak benn dafa am tabaxin bu ko defee nit ki dafay wow ci li nga xam ne loolu la loolu la war a gëm loolu la war a xam mais su fekkee ne diggante boobu yëpp dañ koo fowee xale bi xale bi bu màggee kooku du bokk ak ki nga xam ne moom lañ doon xaar du nekk photocopie wu société bi nga xam ne fi la dëkkoon wante leneen lay doon loolu waajur yi nañ ko bàyyi xel ñi yor programme télé yi bàyyi ko xel ñëpp ñi nga xam ne am nañ kàddu ci loolu bàyyi ko xel ñu tëjee ko rek joxe solution ci loolu solution bi mooy yaakaar naa suñu defoon ci suñu programme njàng mi naka la nit ki war a seetaane télé masalan naka la nit ki war a consommer communication bu bees loolu bu ñu ko defoon si programme yi yaakaar naa dina bokk si li nga xam ne dina am solo lool te lu positif lay doon te dina jëriñ xale bi ndax bu boobaa comme li muy seetaan lépp fa nekk dana xam lim ciy jël ak lim ci dul jël ñu tëje ko ci eh, bayit bi Cheikhul Khadim wax ne Eh, kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab la jamaa fiddatin wala jamaa dahab sama ko sama trésor mooy alquran mooy xadiis waaye du dajale xaalis ak dajale ay or loolu wax la waaye mën ngaa am ay déggin yu bari ci loolu man li ma ko déggee fii ci contexte bi may waxe mooy ki nga xam ne mooy produire film tel walla mu réaliser nangam wala mu def benn giri boo xam ne xëy na bokkul ak valeur société bokkul ak lislaam mën naa am xaalis lay wut wala or lay wut sëñ Touba mu ne trésor mooy alxuraan mooy xadiis mais du dajale or ak dajale xaalis parce que boo dajalee or ak xaalis nga jaay sa diine jaay alxuraan jaay xadiis am xaalis defe ne trésor la loolu du trésor boo gisee ma indi bayit boobu parce que ñi nekk ci espace médiatique ñu bëree bari ci kër këru diine yi lañ bokk ku bokkut fii bokk fële ñoom ñëpp buñ dajee ñoo bokkoon luñ bëgg moo tax ma indi bayit bi ci turu sëñ Touba mu yóbbaale ñi ci des ñoom ñëpp téere alxuraan moo leen yitteel xadisa leen yitteel waaye dajale xaalis ak dajale ay or parce que producteur bi xaalis la bëgg réalisateur bi xaalis la bëgg mu jàpp ne su fowee xel yi ci jamono ji ak fi yàqute tollu xëy na li muy gañe dana gën a bari